àdduna ñu lay gaaw a naxe mooy boo dee am wér ak jàmm gisoo benn jafe-jafe te mel na rek da fee nara dëkk di wéy li yàgg-yàgg doo fi jóg te fekk na sa dund mi ngi dem rek ndànk-ndànk saa yu ak noo jàllee rek xamal ne googa moom wéy na te li yàgg-yàgg du dellu تبكي الأراضي عليهم كالسماوات أبكي عليهم وأرجو في البكاء غدا رضوان من فيه غابوا بالهلاوات